waaw moom Belgique la judo mais mën na jouer Cameroun parce que papa mooy Camerounais yaayam mooy euh, mooy sénégalaise du coup boo xoolee moom ñëw na fi sax vacances ñëwoon na fi Gorée meilleur ami moom si football bokk na si Ilaay Camara Ilaay Camara aussi tamit euh, bi national la mais Ilaay Camara Sénégal bëgg a jouer moom mii nag euh, on peut dire que tri national xam nga donc am na possibilité mën a jouer ñetti dëkk Belgique bi mu judo donc mën a jouer Cameroun parce que dëkku papaam la mën a jouer Sénégal parce que dëkku yaayam la récemment aussi tamit ñëw na fii nii te boo demee Instagram boo ko posé question danaa wax ne carrément man euh, fi xamante ne bëgg naa fa jouer Sénégal ci la bokk donc euh, buñ ma convoqué damay ñëw si petite catégorie et tout donc mu nekk benn jour bu xamante assez intéressant bluffant mooy genre jour yi xamante ne boo jëndoon ticket dem dem si daan leen doo ko rëccu dribbleur la man il est plus dribbleur ah explosif euh, mën na joxe ay passe que buteur maintenant Anderlecht la nekkoon bi mu ne booy xam nga à l'âge de huit ans ba ni mu ni ni mu ba âge bi mu am nii ah nekk si ay vingt ans vingt et un ans yi ni mu nekk nii donc il est encore jeune

yi doon si Instagram direct poser question booy booy wax leen lim liñ ma waxoon genre man Sénégal laa bëgg jouer et tout xam nga donc am naa possibilité mën a jouer tel dëkk donc comme ni mu leen mën a waxee ay qualité daal li mu leen mën a wax c'est un dribbleur c'est un dribbleur c'est un joueur boo xamante ne donc na seen xel de lan lépp lu xamante ne prestation la bu xamante ne euh, Simon Michel def na ko dinaa dinaa ko andi que man rek euh, bi mu demee Gorée tat dama ko capturer tey au cas ou quoi xam nga donc pour dire que c'est des joueurs yu xamante ne maa leen di topp bu baax a baax donte joueurs yi ngay topp dina bëri mais il fait partie des des des rares joueurs yu xamante ne ma nees ci wàllum dribble quoi c'est comme lii moom ak Aliou Badara Mané bi nekk Brésil man saa bu ma nee dribble am explosivité ma gaaw surtout nga gëm sa bopp ba pare nangoo liggéey quoi nangoo liggéey. gëm sa bopp ba pare di liggéey yow da ngay neex a defal vidéo da ngay neex a defal vidéo parce que kii def vidéo dina xam ne kii kat franchement jër na jàppale jër na jër na wax te boo ko waxee aussi doo ko rëccu parce que il a le talent et donc mu ngi nekk di la ko wan et comme ni ma ko waxee mu suba mu fubaloon Cameroun du ma bett parce que c' est le genre de jour yu xamante léegi Cameroun woo na fi ay joueurs yu xamante ne ñoo ngi si ay ay ay ay troisième division man franchement gis naa fi ay joueurs championship donc joueur deuxième division Belgique du leen du leen surtout que ñun Sénégal dañoo marqué ce genre de joueur nak wax dëgg fi yalla bo gisee bu ñu bay tuddu Amara Diouf ci équipe nationale du Sénégal c'est parce que amuñu ay joueurs de côté yu xamante ils sont assez performants xam donc manam joueur de côté comme Demba Seck ñoy xaar ci mom mu andi quelque soit Ousmane Sarr ñoy ngi xaar maanaam joueur côté quoi ñu dañu soxla joueur côté jamono bi à on parle euh, Sénégal joueur côté rek moko ko manqué pour mom mu avancer ci football donc li dal la amone la andi muy Simon Michel ci commentaire yi aussi yéen mën ngeen wax seen xaar propre à